ci ànd gi ñu ànd rek waaw di ko rafetlu taxawaay bi rafet na murid yi teejaan yi xaadir yi laayeen ñëpp doon benn loolu rafet na yal yàlla boole nangu yàlla defal nu tawféex defal nu ci jàmm ah ba yàlla dogal li ñu ci yaakaar lépp ñu am ko bi jaayi Seydina Muhammad laylatul xadar bi benn la islam bi benn la alxuraan bi benn la xibla bi benn la yonent bi sallallahu alayhi benn la kon bu ñu ko bennoo rek am naa ci yaakaar yaakaar ju rëy nag yal nañu yàlla nangul waxtaan yi rafet na jotal gi jot na ànd gi rafet na lépp teg nañ ko ci kaw yoon kon noo ngi ci sant di ci gërëm sama bokki taalibi yi ñu ko àndal yëpp jataay bi rafet na taxawaay bi rafet na sëñ Moustapha Seck sëriñ Adama Sarr Baye Talla Ndiaye kenn ku ne la mu war a taxawe taxawe na kon waa daayira yi ak soxna yi daayira maam jaara yi ñëpp taxaw na waa daayira xidma bi xidmatul xaddim bu ñoom sëñ Diop Fall bi ñoom Mamadou Fall ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na ko defee loolu ah noo ngi ciy sant bu baax nag di ñaan yàlla mu jëmale ko ci kanam Ah, li ñu tàmbali ñu yàggale ko noonu suñu imam bi nga xamante ni mooy sunu xarit ni sunu lépp di imaamu ratib bi moom it sant nañ ko gërëm nañu ko xale la taxawaayu muy taxaw taxawaayu mag la gis nga kàddu yi ma ko jotalal sama xarit la sama lépp la yàgg naa am ci moom yaakaar te booba doonagul imaam ratib ah, yal na yàlla sàmmal nu ko guddal fanam wéral yaramam te bàyyi ko ci suñu kanam rek jaayi Seydina Ahmad ñoom imaam yi topp ci moom imaam Mbaye Diop imaam Cheikh Diakhaté imaam Ousmane Gueye ak ñoo ngi suñuy nit lañu yal na yàlla defal leen tawféex defal leen jàmm ak ah, jiitu jiitu ke topp topp ci lu ñaan yàlla nangu ko lu ñu allahuma yàlla nangu ko loolu lañ leen di ñaanal addina loolu rek la rafet na ba noppi toppante jàppalante dimbalante yàlla boo leen di dimbal loolu rek la ñaan ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر